asalaamaaleykum mbokk yi tay 31 euh, juillet 2022 mu doon jour scrutin législatif yi nit ñi wara dem ci bañ gàcce ya ngir euh, tan seen ay député bi ñuy defee tuuru école yi euh bi mu jul école Cissé Senghor la ñu jógee ñu déw dal si fii école R100 école Kaba Sall biñ fi ñëwee nag ne meeku nañ fi askan wu takku ñoo xamante ne yeewu nañ ñëw def ci seen devoir citoyen euh, gis nañ ne aussi nemmeeku nañ fi amul benn incident nit ñi ñu ngi voté si jàmm di ñibbiwaat si jàmm mais affiance bi taxu koo bëri lool xëy na tamit euh, fii ak euh, ay waxtu ci kanam ni ñi bu ñu noppalikoo ba ci kanam ndax gis nañ ne sénégalais dafa tàmm dernière heure ci lay jóg doog a ñëw def si devoir citoyen par ñu leen di fàttali que vote da di devoir citoyen di citoyen bu nekk waa nga def sa vote xool mi ngay voté ndax bu leen fàtte ne élection législative yi dafa doon élection yu am solo ci suñu doxalinum réew ndax ci la ñuy nasee suñu ay charte suñu ay euh, loi di saytu li liggéeyu gouvernement bi ci biir dëkk bi bu ko defee nag instant bi nii ñu ngi gis ni ñi ñu ngi taxaw à petit di def seen ay euh, vote nànk-nànk ñu gis ne benn incident amu fi noté nañ fi tamit euh, présence force de l'ordre yi comme fi ñu jaar fépp ndax xam ngeen ne ñoom seen liggéey dafa bokk ci indi kaaraange ci lieu yu mel nii ak waxtu yu mel nii su xewee ñoom ñooy taxaw askan wi euh, yokk seen kaaraange ngir yenn incident yi nga xam ne mën naa xew nga xamné boba ñom dañ koy faagaagal kon ñom force de l'ordre yi seen taxaway amna solo ci bëss bi lé waaw di sant yalla rek doo alhamdulilah ci euh, li nga xamni ni euh, moom si lañ nek si élection yi di remercier population R103 yëpp ñëw xëy 8h ñëw voter ci librement sans violence sans dara euh, di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla na yalla may la coalition benn bokkar de Thiès ndam fi ci AR100 ce qui AR100 enjeu locale passée R100 euh, renvoie cette tendance tendance au niveau des locales parce que je maître la plus de 1035 euh, voix raison pour laquelle en tant que jeunes nous euh, dem si élection locale yi te élection euh, dem élection législative yi législative cohabitation au niveau de l'opposition baaxul si réew raison pour laquelle on s'est engagé pour Benno Bokk pour que lépp loo projet de loi la yu war a dem assemblée nationale ñu war kaa voté muy muy réunis. le mi tax Sénégal dès que nous boo xam ne attanul euh, li nga cohabitation raison pour laquelle on s'est engagé tous les jeunes de r on s'est engagé dugg si nit ñi le programme du président de la République nous avons ñoom li nga la Benno Bokk majorité bu mu war am nationale pour nous défendre

moto tax ko koo xam voté nga par rek dañ lay libérer nga nga libérer centre bi baye gaay dem ah, parce que parce que les jeunes ont compris ont compris la situation de ce pays parce que pays bi dañu ko jox ño xamni tal tal taal mi lañ tax a jóg léegi jeunesse boo xam bëgg na li nga xamni moy mooy mi am jamm am stabilité da nga gën ñëw voté parce que jeune moy moy quand on le dit ñoy avenir avenir du pays euh, le euh, si chaque citoyen avait le sujet de notre personnel à la contribution pour le développement de, de, de sa localité ou bien euh, du pays, je pense que beaucoup de pays ou bien beaucoup de localités seraient avancées. Raison pour laquelle tous les jeunes, bon, nous, nous votons ici librement pour

après une communication bu def ci campagne 21 jours on a donné l'information que il faut que les jeunes génn voter li nga xam ne la coalition Benno Bokk pour dëkk bi mën avancer sur lu baré bëree bëri parce que les projets yi nga le président de la République du Sénégal teg pour njariñ askan wi bon pour ñu voter Benno Bokk Yaakaar le mooy dimbali jeunes yi dimbali Sénégal mooy dimbali Rémi. mi ndax keneen koo voter ku loolu boppam la fi nekkal te violence la bëgg te dëkk bu am violence mënut a développer donc il faut stabilité bu am solo am jàmm ak salaam ak pour pour mu dëkk mën dox voilà Inch'Allah Rabbi.. parce que nous am un adversaire qui est venu.. Maître Diagne te ñun ay jeunes Et te gëm gagné te Inch'Allah dañ gagné. Wow, c'est parce que tout simplement les Sénégalais ont longtemps souffert avec le régime du président Macky Sall. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de donner un premier coup de dóor bu njëkk bi nga xam ni mooy yóbbu trois appuis Macky Sall nga on va l'empêcher du am majorité à l'Assemblée nationale pour que valéité yimu am khalat yu ñuul yimu am pour forcer troisième mandat lolu de manière définitive mu génn ci xelam te xamni sénégalais yi paré nañu ak régime il lui reste juste un petit temps pour xamni ci la wara jéxal ñu may ko mu ranger ay valises ak ñimu andal dem abal ñu réew mi ñu liggéey réew mi ndax réew mi souffrir euh, en tant que journaliste je ba ni est-ce corruption ça veut dire que dafa la corruption parce que c'est flagrant mais les ils ont toujours été dignes ils l'ont montré lors des élections locales parce qu'ils ont investi énormément d'argent mais malgré ça y a eu avec nos maigres moyens les populations thiessois nous ont donné leur voix cette fois-ci ce sera encore pire donc le bi di a ñaaw di metti ndax ñun donc y a pas photo ñun on n'est pas confiant c'est juste c'est des formalités qu'on est en train de faire avec le vote mais nous savons qu'on est déjà vainqueur ay formalité le rek euh, on n'a pas besoin qu'on nous pose la question si on est confiant ou pas. Ah, parce que c'est question de confiance, question de formalité. le.

ak Sénégal parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que la politique se fait autrement nañ doon des politique politiques. c'est terminé maintenant on a une population jeune très exigeante donc acteur politique ça veut dire que tu es en déphasage avec la volonté populaire voilà il faut que nous comprenions comprendre les gens sont tellement exigeants Nous, ñii beaucoup de gens ne ont été askan bi de wallu gis assemblée nationale le jeunes ak population yi li ni xaar buñ ko gisul si ñun ëllëg buñ leen demander les vont refuser ñun on est conscient de cela kon ñun lépp lu ñuy wax dañuy wax lu ñu gëm lépp lu ñuy wax dañuy wax li nga intérêt il faut que aussi tamit ñenn ñi bëgg ni ñi cohabitation le pays ne va pas bouger ils ne sont pas plus patriotes que nous ils ne sont pas plus engagés que nous ils ne ils n'aiment pas le Sénégal pas plus que nous nous leen ko gëna bëgg ñoo leen ko gëna engagé ndax ba nuy ak barki démb ak barkati démb ñu ci bari ñoo nga nekkoon de l'autre côté. non le le le le le le maire Ousmane Ousmane Diagne a déjà montré ses preuves Fi ni ñun nekk muy école nous mom ñun waxuñu slogan bi newul 2-0 c'est 2-0 mom amna. xam nga lu wax écart bi ñu amoon mu nekkon 1500 voix on a dit que notre objectif c'est de faire cet écart 2500.